sant di jël nuyoo bi di ko teg ci sa loxo di nuyu itam mboolem njabootu moom Cheikh gépp di ko jaarle ci yow di nuyu Serigne Fallou ak mbokkam sëñ Abdou Lahat ak soxna maam Sey ak mboolem bokki fi teew yëpp di am mbégte mu rëy nag ci teewaay fii ren ci bis bi nga xam ne sëriñ Fallou at mu nekk mu def ko te at mu nekk itam ñu di ko ànd ak moom waaye ren ji mu def ci lu baax mu di ci ñaanalaale xaritam di mbokkam nekkoon kenn ci moom mu di kon sëñ Fallou lii nga def lu rëy la lii nga def lu lu rafet la lii nga def luy luy mottali kóllëre la te loolu lépp sa ak baax rekk la ak xëy na yéen joo xam ne amoon nga ko ci soxna si mu dem ba wan la ginnaaw nga taxaw taxaay bu rafet ci njaboot gi liggéey bu rëy bi nga xam ne def nga ko ci moom mën naa ne ñun ñi sax defuñu ko ndax barki démb dajale nga mbooleem rajo yi fi nekk ak tele yi ñu waxtaan ci waxtaan yu yéeme léegi lañ doon seetaan benn documentaire boo xam ne yaa ko def te loolu lépp yow yaa jël sa initiative bopp waxtaan ci ak njaboot gi ñu rafetlu ko nga def ko te kenn fekkulu ci man duma ci am lu dul mu jekk-jekk rek ne yëf yaa ngi nii noppi na kon sëriñ Cheikh na xam ne day sëriñ Fallou noonu la taxawee noonu la taxawee ci wetu sëñ Moon Mahfouz noonu la taxawee ci wetu Soxna Assu noonu la taxawee ci suñu wet nit ñi muy taxawaay bu rafet loolu itam la ñuy wax léegi bu ko manee ak di ko def ni mu koy defee ak ni mu ci ñemee ak ni mu ci xolam tàllee loolu gannaaw yàlla sa jëmm ji moo tax ndax yow yaay kilifaam loolu itam bu ñu bett ndax sa diggante ak soxla soxna bay sa maam gis na ni mu la defoon ak fi mu la tegoon ak ni ngeen demee woon sëriñ Mahfouz itam yéen ñaar benn ngeen moo tax ba sëriñ Fall li muy def mu ñemee ci nii mu ci ñemee ndax yow mi kilifaam jàpp nga ne fa mu toog la mu fay def yow la koy defal bu laytu xaddar ñëwee ci koor gi lu gàtt-gàtt da nga ñëw ci kër lu ma ñett yoon ba ñeent day jekki-jekki rek dikk daal nekkat dama doon sees ñu ngeen def bii soxna si ne la wetim noonu la doon def lu man di xew lu ne noonu day jekki-jekki rek dikk ah nu ngeen def bu dikkutit bu toogee ab diir day téléphoné di nemmeeku ndax xam na ne njaboot ga fa nekk ak njabootam lañu kon loolu yi mooy li nga xam ne moo dox diggante kër soxna May ak Serigne Cheikh Anta ma di la sant ci turu Serigne Mahfouz ci turu Soxna Assu ci sama turu bopp ak ci turu mbooleem lu soxna may jaboote ndax rafetal nga diggante bi sàmm nga kóllëre gi lépp loo xamante ni bi seqoon nga ko ak soxna si lépp loo xamante ni bi daa nga ko jaayante ak moom ginnaaw mu amu ca lenn loo xamante ne bii bàyyi nga ko te sag baax rekk la ndax bu la neexoon ba soxna si demee day nga toog sa kër daanaka doomi Sëñ Tuubaa moo fi nekkoon nekkatu fi ndax kenn ëpp ab cër ci yoonu murit te ñun xam nañu loolu kon ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di jaarale cant gi ñuy sant Sëriñ Fàllu ci yow moom itam taxawaayam rafet na lool lool lool lool bu ko tey jii man naa ne bi soxna may génne àdduna ba tey soxna Bally deful dara ci leetu xadar gi loo xam ne ànd ko ak Fallou Galasse la ñun ñi itam lépp loo xamante ne ñu ngi koy liggéey ci yoonu Serigne Touba bi waxtu wi ngeesoo seen ko suñ ginnaaw ndax xam na ne foofee kat kër sëriñam waaye itam kër ay bokkam ñoo fa dëkk ndax ñoo bokk dëkk Mbakor te loolu aussi lu mu bàyyi xel la taxaw bi àgg na ba ak yéen yi nga xam ne am na ko ci ñun lépp loo xam ne jàpp na ne lu baax la ak fu mu mën a baaxee. fàllu galas dana ko wommat andi ko ba ci kër biir kër bi lépp lu baax lu mu xam moo xam ab conseil la ak lu mën a doon dana dikk toog nu waxtaane ko kon sëriñ fàllu ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di lay ñaanal yàlla rek mu fay la ndax ñun amuñu sa fay ñaan yi nga xam ne itam ñaan nga ko ci bis bi di ñaan yàlla nangu lépp fekk soxna si fa nga xamante ne bii fa la tëdd sunu borom yokk ay ay leeram nanga xam ne daal am nañ mbégte mu rëy ci yow sa taxawaay rafet na kon nag loolu ñu ngi koy seere sëriñ Cheikh moom mi sa kilifa di sa sëriñ moom itam di ko ñaan ko ñaan rek mu ñaanalal ñu la ndax moo nu ko dàq ku daal sëriñ na nanga xam ne suñu xool seet na guy suñu xel itam dal na ndax ginnaaw soxna si amul menn mbokk moo xam ne taxawaay ba nga xam ne amoon nga ko ci kanamam dellu nga ci ginnaaw jàpp naa ne liñ doon seetaan fii léegi rek firnde la ci yéen ñëpp kenn ku nekk wax ju rafet ji nga xam ne wax na ko tibb ko ci xolam loole moo tax ba ñun day jooyuñu ko ndax wax ndax fu nu gese fu ne seen leen ngeen nekk ci sunu wet jiitu ñu topp ci seen ginnaaw ngeen dañu teete di ñu xelal di ñu wax yoon wi ñu war a jaar di ñu tegtal li nga xamante ni mooy li ñu war a def loolu moo tax amuñu benn njàqare ci lenn loolu moo tax ñu ànd ak xel mu dal loolu moo tax itam suñu ronkoñ si génn bay fer kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa tax na wa barakatuh